euh, la gestion de la Covid-19, machallah. Et je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec Mansour quand il dit que vous étiez plus populaire que le président de la République. Je pense que la meilleure période même où les Sénégalais ont ont apprécié l'action présidentielle, c'était pendant la Covid-19. Il a été présent tout au long. Et, si Diouf Sarr est le, est le, est le chef de corps, lui, il était le, le, le général, le général d'armes. Donc Covid-19, euh, Sénégal mënee ko noo xam ne Euh, vraiment ñu ràññee ñu euh, suñu taxawaay bu baax a baax mais yow dafa am ay période charnière dans ta carrière politique muy 2014 euh, muy 2020 bi ci Covid 19 bi vraiment bi ngeen pare ba ñu éradiquer la la pandémie la copie était parfaite mais le contrôle à à à froid. Euh, dafa xaw a entaché la la la copie euh, première tâche bi mu ngi jóge ci euh, rapport cour des cour des cour des comptes rapport cour des comptes ŋàññ le fait ñu jël des structures yoo xam ne xameew ñu leen Euh, ci distribution wala ci achat euh, produit pharmaceutique jox leen des marchés d'un montant euh, de 17 milliards de francs fa alors que pharmacie nationale d'approvisionnement loolu moo doon liggéeyam d'ailleurs sax le SAMES e pesté woon na contre ça et la Cour des comptes donne raison au SAMES e dans le rapport bi nga xam ne génne nañu ko ñu yëkkati ay irrégularités ci façon bi nga xam ne moom la ñu gérer les dépenses sanitaires de la Covid deuxième mbir bi nga xam ne moom moo ko entaché euh, mooy livre docteur Bousso Abdoulaye Bousso bi génn Abdoulaye Bousso pour rappel il était le directeur euh, du centre d'opération des urgences sanitaires euh, du Sénégal euh, ci biir croisade bi contre la Covid moom mu quitté le ministère de la santé à l'époque on a parlé de convenance personnelle mais il était un peu nu mu tudd visible que yéen ñaar il y avait des divergences dans la façon de mener la croisade dans son livre aussi mu relever des dépenses inco incohérentes moom daal nee na dafa mbir mi dafa meloon ni un partage du gâteau il fallait servir tous les services il y a des choses qu'il n'a pas compris alors que lui il estime que la Covid c'était l'occasion rêvée euh, pour euh, xoolaat bu baax euh, doxalinu investissement yi ci suñu système de santé à Dakar ça se passait très bien mais prise en charge des des des, des victimes de Covid euh, dans les régions euh, y avait des problèmes et puis il invite à revoir un peu tout tout ce qui s'est passé pendant euh, cette euh, cette Covid là et du coup euh, kii bi xaw a brisé wu un peu vitrine bi xaw a brisé wu un peu nan ngay apprécier lan ngay répondre sur d'abord le rapport de la Cour des comptes les reproches qui vous ont fait in fine vous êtes le responsable moral vous étiez à la tête de tout ça et qu'est-ce que vous répondez euh, aux accusations du docteur Abdoulaye Bousso merci Baïmouna je crois que sur cette question-là il faut vraiment donc euh, que ñu déglu bu baax euh, pour comprendre que si la communauté internationale bu ñu noté le Sénégal en disant que le Sénégal a très bien géré la Covid on était deuxième au plan mondial je crois que tout le monde a applaudi et c'était formidable mën nañu revenir maintenant sur les aspects de ce de cette de cette réussite lan moo tax quand même communauté internationale ne ñun vraiment li ñu liggéey lu mucc ayib mais tey par rapport ak deux aspects yi nga wax rapport Cour des euh, le livre du docteur Abdoulaye Bousso je pense quand que soit en posant les questions liruloo le rapport bi liruloo le, le, le livre Et je vais je vais y revenir je vais y revenir je vais vous dire pourquoi. <laughs> je ne suis pas même entrée dans les détails du docteur Bousso. je vais vous dire tout à l'heure ah. je vais vous dire parce que il est important aujourd'hui que les Sénégalais ñuy déglu ñu am au moins une religion de ce qui s'est réellement passé. tey normalement dañu war a applaudir aussi le système de santé par rapport à la gestion aussi de ses ressources. pourquoi Euh, très souvent bu ñu ne par exemple on a alloué mille milliards à la gestion de la Covid dans l'entendement yu sénégalais yi xamante ne ñoo koy dégg dañ naan mille milliards jox nañ ko ministère de la santé pour mu faj feebar première rectification les mille milliards c'était pas pour le virus pour génne virus bi mais c'était pour que suñu économie bañ a nërmeelu c'était un programme de redressement de de résilience économique et sociale et dans les 1000 milliards l'axe 1 du programme le renforcement du système de santé a consommé 45 milliards je crois quand même il est important de noter que confusion bi ñuy def noonu en croyant que 1000 milliards on a donné pour donc éjecter le virus donc c'est le ministère de la santé qui a géré 1000 milliards non dañu def mille milliards pour que notre croissance ne se ne dans les 1000 milliards le de santé a consommé 45 milliards ça déjà c'est une bonne clarification 45 ou 63 milliards 45 milliards 63 milliards effectivement 64 le projet, le projet le programme à dire en termes de budget prévisionnel okay. mais à la mise mhm. tout ce qui a Parce que tout ce qui est imputé santé n'est pas forcément géré par le ministère. Mmh. Mais tout ce qui est géré par le ministère, c'est un cumul global de 45 milliards. Ça, c'est une bonne clarification à faire pour que les Sénégalais comprennent Nous devons comprendre l'eau. Deuxième élément, Maïmouna, je crois que le rapport de la Cour des comptes euh, n'a pas, j'allais dire, épinglé le ministère par rapport aux commandes PNA. Je crois que c'est pourquoi là, je dis, il faut Euh, qu'est-ce que le rapport dit. en wolof lan la rapport bi wax. rapport bu daf ne bu ñuy def décret décret boo xamante ne day génne yenn opération yi bu ñu nekkee en cas d'urgence ñuy def décret pour génne effectivement donc achat yi si procédure commande publique bi marché yi nañu ko utal benn cadre boo xamante ne danañu promouvoir la concurrence il faut muy am concurrence waruñu jël rek un décret ne écoutez léegi mën nañ jënd fu ñu neex parce que bu ñu defee loolu du ñu promouvoir la concurrence et mu joxe un exemple par exemple ne dans tel cas de figure jënd nañ mais on aurait dû passer par d'autres structures surtout sax la PNA et de ce point de vue là li ñu war a clarifier mooy la PNA c'est la pharmacie de l'État c'est la pharmacie des structures publiques la pharmacie bi xamante ne moom la ngay jënd yow ak Mansour ak les Amado autres mooy la pharm les pharmacies yi nekk effectivement donc dans la ville mais structures publiques yi les hôpitaux et autres dañu war a jënd au niveau de la PNA ak l'État mais lan lañ fa war a jënd voilà la question qu'il faut se poser li ñu fa jënd mooy les médicaments yi xamante ne dans le décret ñoo nekk si li ñuy wax les médicaments essentiels dafa am effectivement de molecule yoo xamante ne moom la ñu bind sur un décret un arrêté ne yii ñu ngi ko jënd PNA et dans toute la gestion de la Covid il n'y a un seul médicament boo xamante ne mi ngi référencié dans les médicaments essentiels bu ñu jënd feneen fudul PNA tout ce qu'on a acheté dans une logique de concurrence te jëndewuñu ko PNA war nañ ko mën a jënd feneen fudul PNA bu fekkente ne foofu moo gën a compétitif en termes de prix en termes de délai je crois que loolu aussi c' était important na donc moo tax lu tax ma ne la ma lay taquiner na lire loolu la dans le rapport en aucun moment dans rapport la Cour des effectivement n'a tapé en disant que non waruñu woon jënd lii fii ñu ngi ko waroon jënd. PNA mais mais nan la état di amee euh, sur la PNA. Euh, nan la état di amee une structure habilitée même bu fekkee ne euh, PNA coûte plus cher la naa c'est une structure de l'État. bu ñuy jënd bu ñu demee bay commande on est dans une phase de riposte il une importante manne financière bu ñuy génnee pour jënd du matériel euh, du matériel médical pourquoi laisser la PNA bi nga xam ne c'est sa spécificité mais justement même c'est à ce niveau après dem jël dem jël d'autres organismes yoo xam ne d'autres structures yoo xam ne xamuñu leen euh, wala baaxoo ñu di def loolu c'est à ce niveau que vous faites une erreur la PNA amul vocation di jaay du matériel médical la PNA doit vendre des médicaments et les médicaments non c'est clair je crois que à ce niveau-là c'est des médicaments une pharmacie la PNA est spécialisée pour vendre les médicaments qui sont sur une liste référencée de manière claire il n'y a aucun médicament qui soit sur cette liste-là bu ñu jëndee feneen même bu ñu jëndee les vaccins vaccins yi ñu vacciné wu yëpp Sénégal c'est la PNA qui est bête parce qu'il s'agit effectivement d'un médicament confusion bi ñu def nag maintenant si c'est autre chose qui n'a rien à voir avec les médicaments yi xamante ne PNA moo yoru monopole bi en ce moment-là on fait jouer la concurrence dem jënd fi xamante ne moo gën a baax en terme de prix te dans le contexte de la Covid man nañu wóor ne dañuy jot effectivement les commandes dans des bonnes conditions parce que temps avion amul rien non y a rien il fallait effectivement jënd fi gën a baax en termes de prix ak fi gën a gaaw en termes de. livraison mais pourquoi. mais la PNA encore une fois auprès de trois structures appartenant à la même personne. bon de ce point de vue là je crois quand même que boo xoolee le dossier de manière globale le dossier effectivement la Covid mais vous parlez de 17 milliards mais on a des commandes importantes dans d'autres structures yoo xamante ne mais c'est d'autres Sénégalais. lañ ko commandé aussi et ces structures-là viennent nous offrir effectivement dans un contexte extrêmement difficile la possibilité de nous livrer le matériel commandé à très bon prix mais aussi dans des conditions de délai je crois que c'était ça le plus important et encore une fois boo liree le rapport en aucun moment le rapport n'a critiqué de ce point de vue-là le mode d'achat en aucun moment c'est pourquoi je dis ne faisons pas de confusion n'allons pas trop vite en besogne la PNA a participé activement à l'acquisition des intrants dans le cadre de la COVID, mais dans les limites de ses compétences. Je crois que c'est important.